ñuy am mbégte mu rëy am contentement bu rëy si ñëwaat tey jàkkaarloo ak yéen ñëw si beneen façon ñëwin li tax ñu am mbégte nag mooy sunu xëy bu ne sunu jug bu ne liñ ci jublu mooy xool nan lañuy ñuy tegee sunu tànk fi nga xam ni fa la ñu ko président Macky Sall tegal tegloo li ñu kontante loo mooy tey jii bu ñu demee ñibbi sunu kër ba toog daf sunu bilan dinañ sant yàlla ndax xam nañ ni yokku nañu parti APR yokk nañu parti coalition Benno Bokk Yaakaar ndax dafa am koo xam ni nekkutoon ci sunu biir mu xalaat bëgg ku ko jàppale jàppale gox bi mu bàyyi fa mu nekkoon di opposition ñëw dugg ci biir APR kon loolu nekk na ndam bu mag boo xam ni ndamu APR la loolu nag moo ñu tax dugg biir Médinatoul moo ñu tax a dugg biir kër gu mag dugg bi ñu dugg fii dañu fi dugg ngir dooleel sunu parti dañu fi dugg ngir jàppale askan bi waaye dañu fi dugg itam ngir dooleel bépp responsable boo xam ni yaa ngi yeewoo biir kër gu mag dugg boobu moo tax ñu ñëw fi ndax APR benn parti la jeunesse su docteur Soumaré jeunesse su beneen responsable APR ñun ñëpp li ñu war a ñor mooy nan la ñuy fexe ba faj so askan soxla askan wi li ñu war mooy nan la fexe ba ñun ñëpp ñu nekk benn ñi yeewoo kër gu mag ñi yeewoo Cerno Kanji ñi yeewoo kër Cheikh ñun ñëpp dañu war a lëkkaloo nekk benn ndax président Macky Sall wàccoo na ak ñun ñun ñoo war a wàccoo ak moom nan la ñuy wàccoo ak moom ñu fexe ba gis-gisam ci suqali Sénégal ñu fexe ba askan bi xam ko te loolu ñun ñi nga xam ni ñoo am ay ndomba tànk ñoo ko war a def may profito ci sama teew biir kër gu mag di tàllal sama loxo bépp responsable APR bépp responsable coalition Benno Bokk Yaakaar pour que ñu ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo may askan bi image boo xam ni askan bi dinañ ñu ñeme dinañ ñu wóolu ndax sunu jàmmoo moom mooy dalal xelu askan bi sunu jàmmoo ci lañu askan bi di wegee kon loolu mooy appel boo xam ni man docteur Soumaré maa ngi koy woote di woote appel boobu itam di woote appel boobu itam